Ah,
ah ñu ko yàlla tàmbalee ñu ko yàlla ubbee kaamilam bii nu tiim muy turó turam yu màbb yooyu leen bismillahi rahmaani rahim tabarukan bi asmail usna wa xasdan li wajhil karim ah boroom xam-xam yi dañuy wax ni rawat na sax ci hadis ñu ni li kulli shay'in asaasun li kulli shay'in asaasun ni bismillahi rahmaani rahim nekk fondement wu téere yi yëpp ñu ni kaaba gi ci boppam moo nekk fondement wu àdduna màkk ci boppam moo nekk fondement wu àdduna te màkk kaaba gi fondement ñu ni kon nag kaaba gi moo di fondement wu àdduna àdduna bi yëpp seen fondement asaas bi moo di kaaba gi ñu ni asamaan yi yëpp muy juróom-ñaar ak lu gëpp juróom-ñaar la ñuy tudd waaye kenn xamul nu mu toll waaye seen fondement moo ne asamaan juróom-ñaareel suuf yi seen fondement moo di suufu juróom-ñaareel ah ñi nga xam ne li nga xam ne mooy fondement lu bind fi asaasul xalqi moo di aadama lii fondement lu bannu Israël ñu ni mooy Yaxub mooy fondement lu bannu Israël yonent yi seen fondement ki ci gën mooy yonent yàlla Muhammad waaye fondement bi ñu ni mooy noos ñu ni fondement ngu téere yi yëpp li ñu bari bari moo di alxuraan alxuraan fondement am moo di Faatiha Faatiha fondement am moo di bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim nag fondement am moo di baay baay baa bi baa bi mooy fondement wu lépp nag kon moo tax bépp bépp araf boo bëgg a bind baa ngay jëkk a def bu dee waaw ak buy deel ak buy zaad ak lu mën di doon rek boo ne capp sa xalima rek def nga baa boobu kon nag moom la ñu ubbee téere bi alhamdulilahi rabbil alamin moo di ngën li ñaan ci jaamu waaye alhamdulilahi rabbil alamin am nag moo di ngën li ñaan ngën li lu ab jaam di ñaan yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin am mooy la ca gën mooy la ca gën a rëy itam nag ci la ñu xare turu Muhammad ak turu Ahmad ak turu Xaamidu ak Xamidu ak Xamdaan yépp ñu ngi ko xare ci turu alhamdu aa lillahi rabbil alamin alamin nag ñu ngeen ko jànge rek alam yi alamu nangam ak alamu nabat ak alamu nangam nangam ak alam yépp nag daje nañu yàlla ni yépp nag may seen borom muy rabbil alamin malaayika yeeg yëpp alamu doomu aadama moo ci gën a tuuti yàlla nee na ñëpp may seen borom te it maa leen yar itam nag moo tax mu jël rabbi bi mu laa ko aalamina yàlla ni ba mu ne alhamdulilahi rabbil alamina mu defaat ko tawkiitu laf fii sant gi cant gi dafa sant wane ni jaam war a def mu ni rahmaani rahimi rahmaani moo yor xéewal yépp ci àdduna moo koy joxe rahimi moo yor xéewal yërmande itam ci àllaaxira mu di rahmaani rahimi rahimi nag mi ngi jëm ci luy sax rahmaan nag mi ngi jëm ci luy dem ak dikk luy deng deng rahmaan nag ay sukkuraan nag atasaan ak yu demee noonu daal xam nga yooyu dafay gaar te itam dafay làqu lu mel na que xiif dafay làqu ci cër waaye kenn mën ni xiif baa ngi nii rek itam noonu dafay làqu moo tax du sax du sax rahim yi nag moom dafay sax moo jëm nag ci àllaaxira moom nag dafay sax ni yooyu nag moom dañuy làqu xiif du sax rek du sax xéewal du sax mandite du sax safaraa nag yu deme noonu moo di rahmaan dafay def nii maliki yawmi diini nag yàlla nag am ñu ni maliki wasfu la ñenn ñi ne ismu faayil la ismu faayil yi ñu ni milku moom dara ak lu jëm ci nguur gi maaliki yawmi diini yàlla nee na maa moom bisub diine ba jeex na maa ko moom maa moom bisub diine ba ñu ni nag doomu aadama mënul moom dara ci biir moomeelu yàlla gi lu dul lu ko yàlla moom loo mënunoo moom dara waaye nag li la yàlla moom loo nag yaa ko moom tag moomeel mais moomeelu yàlla koy jur ci moomeelam gi nag moo la ci tànk moom loo la dara kenn kenn ku ne am na lum la moom loo maliki yawmi diini waaye ah waaw moom mooy malik moom loo moo tax ñuy jàng maliki ñii di jàng maaliki lépp baax na iyaaka naabudu iyaaka nastayinu nee na doomu aadama bi yàgg man noo seddoo paake ñel ñel na la ñel na la li nga li nga li nga ñaan nag mu ngi commencé ci idna sirata mustaqim foofu la sunu bos commencé lu commencé ci bopp ba ba fii nag yàlla nee na maaka moom maanaa yàlla daf ñuy jàngal boo dee ñaan yàlla mooy def boo dee ñaan diw tabarkalla da nga koy gërëm da nga koy gërëm yow rek laa ci yaakaar yow rek laa ci yaakaar maa ngi lay sant bu baax baax alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim yow rek laa yaakaar ci sama soxla si yow amuloo morom yaa am nangam am nangam am nangam te yow maliki yow mi dina yow daal yaa moom lépp waaw yow yow rek laa yaakaar de ah te yow nag yaakaar na xabudu yaakaar na sayn yow dong laa yaakaar nag ci sama aajo bi doo fi jóge di dem fenn da ci yow laay sàkk ndimbal itam nag ah loolu ngay jiital nag soog ñu dina siraata mustaqim waaw yàlla dafa nuy jàngal nu ñu ci géwél mbaay kay bu ñëwee ci yow yow lay jiital kàddu yu mel noonu lay jiital da lay gërëm sant la fat doole ji jox la jëy la lu ne mu wax la ko sol nag ne dama doon sàkku ndimbal daal ci waaw mooy fatiha waaw mu won la ni nag ñaan nag yonent bi nag mooy wasila bi nag da ñaan nag ci daraja yonent bi nag ñi nga xamante ni réseau bu ne wala réew mu ne seen téléphone am na lu ñuy tuddee ci nga xam ne moom ñëpp a koy bokk indicatif bi indicatif bi nag moo di yonent moo tax fatiha ba mu jeex laay bu ne am ñaari miin di jëkk ci turu Muhammad ba mu des iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin yàlla na yàlla nee na ko nag kooku nag man la laaya burul boobu rek am na ñaari miin bismillahi rahmaani rahiim nga xam ne mooy umul kitaab nag di ndey jëmam am ñetti miin ci turu Muhammad am na ñett yaay yu ci def yëpp am na ñaari miin malik yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin moo amul inna sirata mustaqim am na sirata allazina an'amta alayhim am na xayril maxlubi alayhim am na fàttee jeex fa tabarakallah lu nekk nga foofu nag waaw ihdina siraat al mustaqim waaw léegi yow mi diini iyaaka nabudu iyaaka nastain te yàlla nag jiital nag naxabudu maliki yow mi diini iyaaka naxabudu iyaaka nastain naxabudu dana nuy jaamu iyaaka yow dong dong dong dong dong boole woon ci keneen baa waruñu ko cee boole bokk jaamu moom yàlla ko moom jaamu yàlla ko moom dëgal nag la ñu jox nit ñi dañ koy dëgal nag di wi ci di wi ci di wi ci santaaneem waaye nag jaamu nag jaamu nag jaamu nag moom yàlla ko moom te bu fekkente ni lu mu la waxe rek loola la doo seet la ci sariya bëgg lañ ci bañ yaa ngi ci jaamu te jaamu nag yàlla ko moom loolu jaam rek ko war def na'budu iyyaka danañu jaamu iyaaka yow dong wa nastayin danañu sàkku ndimbal ci yow dong dong dong it iyaaka ci yow nañ seet ñaari iyaaka yooyu la ni ñu ko waxee buñ ko ko defee day kenn du lu gën iyaaka na'budu iyaaka nastayin indi na nag ñaan nag yàlla na nga jubal nu nag yàlla na nga jubal nu siraata yoon wa mel na yàlla dane wan yoon nga ne al mustaqim yoon wu jub ba nga xam ne amul benn dëng dëng dafa ni dafa ni direct rek moo tax ngën li ngën li ñaan mooy yal na nu yàlla jubal nit boo ko ñaanalee ne ko yal na la yàlla jubal boo amee ak njub am nga yiw yépp boo ko ñaanalee xam-xam nag ñaana nga ko lenn yiw yal na nu yàlla jubal yal na nu yàlla jubal xam-xam bu ànd ak njub ak jëfe boo ne nit yal na nga bari xam-xam yal na nga am xam-xam am na lenn yiw waaye bu dee jub nag def na la xam-xam doon wut am na yiw yépp nag loolu moo tax jur ñu dugg ci nit ñi nga xam ne dañoo am daraja dañoo rëy dañoo gàngirlu boo leen ko waxee ñu mer yal na la yàlla jubal koo ko ci wax mu mer surtout borom xam-xam yi borom xam-xam bu am daraja boo fekk ay taalibeem toog nga ne ko yal na la yàlla jubal day mer ah ah da ngay daal ci bu gàddu wet naan la dafa jubul te yonente yi fu masaan toll bu dëgg bëccëg suba ngoon di ñaan ak njub yal na ma yàlla jubal ah dafa jafe moo tax idaayatu dalaala la ah njubub tegtal nag borom xam-xam yi moroom yi alaaji Maalik looyu moom lañ yore dañ lay tegtal rek waa ma samudu fa addaynahum tegtal nañ leen ko sax boo xam ne hidaayatu tawfiix nag yàllaa ko yor waaye borom xam-xam yi moom mënuñu jubal kenn dañ lay tegtal daañu leen daal ndakaaru daal boo ca dee dem yoon waa ngi nii doo ko wàcc ba yegg waaw naka laa tax bi man ababta ihdina siraata al mustaqima yoon wu jub wa demal ci néeba indil ma mbub mu weex ma siraata mustaqima moom lay melal siraata lazina yoonu ñi nga xam ne nag an'amta am nañu xéewal xéewal nga leen yow yàlla àllin ci ñoom xayril maxluudi sànjewoo leen wala daa dina comme yow ak nasaraan xayril maxluudi ah yow war lañ ko tudde borom xam-xam yi wala daa dina ñu ni moo di nasaraan xayril maxluudi alayhim wala daalin alif laam miim allah axlam bi muraadihi bi saalika waaye daal allah axlam bi muraadihi waaye bi saalika saalika alkitaab saalika muy isaara muy junj yàlla nee na isaara saalika loolu yi ma junj loolu yi ma junj mu nekk de loo xam ne lii taasim la laam ngi jubluwu ci sori buxut yi lim ci jublu dëgg dëgg dëgg moo di màggal saalika lu rëy loolu yi may junju alkitaabu kitaabu tawreet kitaabu injiil kitaabu sabar ki nag dafa ne alkitaabu muy maarifa maarifa lu doy waar la maarifa alkitaabu alkitaabu saalika alkitaabu mooy téere bu ñu xam ba bii nga xam ni mooy téere bi yonent yàlla Muhammad di jàng mooy bii nekk ci suñuy loxo moo di téere ba laaray ba déet lu mat a sikk ku sikk itam sikkal nga lu mat a sikkal fii ci téere boobule li li ñu bañ a sikk lu mu doon mooy min indillaahi ma nga bàyyi ko fa yàlla loolu la kenn war ta sikk téere bi bàyyi ko wul ca kenn lu dul ma nga bàyyi ko ci yàlla xuddan nag mu nekk isim joona ismu faayil la haadin aju jubal la moom téere bii maanaam xuddan aju jubal la muy xabari ñaareel nag masalan nga waxoon ni saalikal kitaabu lañ ci jublu mooy asa al kitaab huddan nag muy aju jubal nag lil muttaqina ñi ñu ragal yàlla ñépp alxuraan jubal na leen ñi nga xam ne dañuy mujj jëm ci ila taqwa bi imtisaalil awaamir wa ijtinaabi nawaahi dem nga ci borom xam-xam yi ñu wax la li ñuy tere wax la li ñu digle nga def ko ñooñu nag lil muttaqina ba tey moom la ñuy firi lësi na mooy ñi nga xam ne yoomi noona dëggal nañu bil xëy bi ci lu ñu gisul gëm nañ ko yoomi noona gëm nañu dëggal nañu bil xëy bi ci la nga xam ne faddu na ci dekk ak ajjana ak sawara ak yu demee noonu daal wa yuqiimoona ñuy saxal saxal saxal waxul ñuy sax dafa ni wa yuqiimoona ñuy saxal salaata julli yi nga xam ni teel na ko tudd lool moo di julli juróom ñu di ko saxal bu julli jub see nga waaj saxal ko defal ko jàpp jàpp ci saxal julli la julli bis bu ne nga julli waxtu wa ñëw nga julli ca waxtu wa wa yunfiquuna ñuy joxe it mi maa ca la nga xam ne mu taqoona la ñuy firi nag rasaqnaahum wërsëgal nanu leen ko doole ci la bokk xel ci la bokk lépp wërsëg nag nit ñi lu gën a bari dañ koo jooyal ci alal te moo ci gën a néew doole ci wërsëg la aha njaboot gu jub ci wërsëg la diine ci wërsëg la gudd fan te boole ko jaamu yàlla wërsëg la xam-xam ci wërsëg la laaye ko dugg laaye biir ci wërsëg la aha am melo woo xam ne ku la gis bëgg la ci wërsëg la taara nga ca lu nekk yàlla melal la loo xam ne boo doon si bind sa bopp it noonu ngay def sa bopp boo doon bindee sa bopp nii ngay nii la yàlla binda noonu ngay def yàlla defal la ko ci wërsëg la ah lu rafet ak yépp ci wërsëg la xam nag ñu bokk na ci yi nga xam ne mooy àjjana réew mooy yàlla wërsëg la ci wér ci réew mu nga dëkk moo ci dàq nag jox la doom yu jub ak waa kër ñu juboo ay soxna yu juboo doom yu baax wërsëgal la ci réew ma nga def loolu mooy àjjana àdduna loolee nag doole jooju leen yàlla wërsëgale nag ñu joxe ca ni ñu joxee ci seen alal dimbali nit ci sa doole dimbali nit ci sa doole yooyu maar saq naam yoon faqoon ñu ngi ca joxe ah man de mas na maa dal te ka ma ko defaloon du jullit ñu dem umra sama yoon wu jëkk Paris ñu jaari Paris ma wàcc nag ci avion bi daal di yéeg ci loolu ñu naan sàppi la xaw ma sàppi boobu la ak samay maraakis muy rulle maa ngi samay maraakis rek ba may wàcc rek naka ma ne sama tànk nii rek ñu sànni ma bi ma sànnee rek fekk benn madame a ngi taxaw rek ma aw ma rek dar ma dar ma rek moo ma tee daan te ba ma daan woon foofu fa laa yem mu dar ma rek ba ndeeloog man rek waaye mu téyem ba bu baax rek ba ma taxaw ci ma doon teer si nag di ko làkk di ko gërëm mu ne ko bien sûr ñun lu ma war la xam nga doole ji maam joxe na ci te xam nga ne kooku du baadoola ndax baadoola du dimbali kum xam ah waaw loolu itam ci wërsëg la wërsëg woowee ko yàlla jox jox na ma ca ah waaw wala siina ba tey mu tàqoo na mooy ña nga xam ne yoomi noonu dana ñuy dëggal bi maa ca la nga xam ne un si la wàccees na ko iléegi ci yow yantee la Muhammad muy alquran muy Abdullah ibnu Salaa doom ñu mel na moom wa maa ak la nga xam ne un si la wàccee woon nañ ko min xablika ci la la jëkk yow yonente bi mooy tawreet ak linjiil ak lu dul tawreet ak linjiil ba tey noo ngi ci ragal ñi ragal yàlla woofum te ñoom yoo xam noonu woy wóolu lañu dañ koo xam yoo xam noonu moo tax li gën a baax ci pré mooy xam woy xam lañu moo tax xam-xam am njëriñ wa bil axirati hum yuuqinuuna wam ñoom yuuqinuuna bil axirati xam-xam baa tax ñu wóolu ko yàlla nee na ulaayika ñoo ñi ma melal ñoo ñi ma melal commencé ci lazina yuminuuna bi ma unsila ilaykum commencé ca kon ca walazina walazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquuna walazina yuminuuna bi ma unsila ilaykum wa unsila min qablika ñooñu mooy ulaayika ulaayika ñoo ñi ma tudd allahu dan ñu ngi ci kawub njub min rabbi njub boo xam ne ngi mi ngi bàyyi ko ci seen borom bu ulaayika te ñoo ñi nekk ci kawub njub mooy ñaari ulaayika yi ulaayika ñoo ñi ma tudd allahu dan ñu ngi ci kawub njub min rabbin bu ulaayika te ñoo ñi nekk ci kawub njub jumum ñoom almuflihoona ñooy dem àjjana ah kenn xamul kuy dem àjjana caaxaan la ah ah ah waaw ñii dem àjjana bu noonu wallaahi mufli woona biir jannati ñoo mucc itam ci sawara waaw jullit yaa ngoog demkati àjjana yaa ngoog ñeneen ñi ca des ñoom la ñuy bëgg a dugg mu ni inna la ci ne ni ki gaa ña nga xam ne nag kafaroo wedd nañu lañ ñee gëm yedd nañu la ñee gëm muy leen doon firi mu taxoon ñu yooyu nee na bil xëy bi bu yokkee mën a salaata ma tax na ñu soxla ba ci fi mu yem lépp wedd nañu këfaroo loolu lañu weddi mel na abbo jaxal ak abbo laxaab ak ñu mel na moom ñooñu ñooñu wedd la ñee gëm ñooñu li leen di dal ku nekk xam na ko laa yoominuuna duñu gëm mukk ñoo ñu weddi la ñee gëm laa yoominuuna jumla ji dafa gaar ci diggante lisim ji ak xabar bi ak li ci des laa yoominuuna duñu gëm duñu gëm laa yoominuuna duñu gëm mukk ñu ne faw duñu gëm yàlla ne sawaawoon yemoo na àllin ci ñoom ansartum nga waar leen am lam tam sunu wala nga bañ leen a waar loxo bi lu ñu firi mooy kuy waare ku am xam-xam kuy boole waare ak ragal loola ku amul xam-xam mënoo waare ku amul xam-xam mënoo waare sawaaw naa leen aw asta am lam takun min alwaa'isiin am lam tam sunu laa yoomi noona ndax yàlla xam na ci xam-xamam bu yàgg xam-xamu asaliyaam ne ñoom du ñu gëm ñu ni mel ne dañu ni yàlla lu tax duñu gëm mu ne xattanu tay na góor gi da daan wax kaska ne liñ kañ na laahu bur yàlla allah xuloo bi ci seeni xol yàlla da koo tay yeew ko ba mu dëgër dara du ci dugg mel na tëlëj mel na bi yecc mel na bi yecc ab yecc yaja am ak tax ak tëlëj wala samim nekk na ci seen déggee tay gi xisaawatum ay laas ay laas a fa ne wala absaarim nekk na ci seen bët ya xisaawatum duñu dégg duñu gis kon nag lu fi sës wala mu ñeen na leen asa buñ bëggal asimun gu rëy muy asimun gu sax mooy naafiq mooy mooy yéefar ya wax nañu jullit wax nañu yéefar naafeq la ñuy bëgg a wax ñett ñi la yàlla jiital ci alxuraan la ñu ji dafa wax jullit wax yéefar wax naafeq naafeq da yar melaw jullit ak baatinu yéefar wa mina naasi tukkee na ci nit yi makka ya ak ñi mel na ñoom ba léegi man koo xam ne yàqoolu day wax amanaa dëggal nanu maanaa gëm nañu bi lay ci yàlla wa bil yawmi ak bis ba axiri ba di mujj muy yowmal xiyaam loolu la ñu wax de yàlla nee na kàcc nañu wamaa hum déet ñoom kat bi moomi ne nañuy way dëggal gëmuñu de yu xaadi hoona ah dañuy waran yàlla kenn mënu ta kenn mënu koo war dañuy baat bi nag tëgg tafaal la moo tax am ñuy def yax daxoona yu xaadi hoona ñuy waranteeg laaxa yàlla wala si naa gaañ nga xam ne amanoo gëm nañu moo tax mu ne wamaa yuxaadihoona am ñuy def wamaa yaxdahoona munu ñoo waranteeg illaa anfusum loolu seen bopp seen bopp rek la ñuy war waaye waru ñoo war yàlla seen bopp la ñu war war sa bopp nag mooy alak sa bopp moom lay firi wa baalu xadaayihim maanaam seen ayu parce que alak alkane ji war yee ko jur moo tax alkane ji war yee ko jur tëbuñu tëb rek alaku yàlla tëbul tëbit alak leen moo tax mu ne wa baalu xadaayihim raajihum ilayhim ci ñoom lay dellu wa maa yasuruuna xam-xamu yëg bokkul ak xam-xam yi ñu jàng ci téere yi xam-xamu yëg dafa am loo xam ne dañ koy yëg muy li ma doon wax sànq xiif ak mar ak yooyu dañ leen di yëg xam-xam bi nga ci am mooy yëg ko waaye doo ci teg sa bët wa maa yasuruuna mooy xam-xamu ruux yëguñu ni mënuñu koo yëg yëguñu ni seen bopp la ñuy alak fi qulubihim nekk na ci seeni xol maradun sikk ak naafiq muy feebaru sikk ak feebaru naafiq bokkul ak feebaru yaram fasaadahum dolli leen laaw bu yàlla maradan bi mu wàccee alquran yàlla dolli leen ci beneen feebar mooy ñàkk gëm alquran wala moom ñen na leen asaabun mbugal alimun mbugal gu méttee méttee métti bi maakaa na ci sabab lañ nekk am na ñu ko jàng tasdid am ñu ko jàng taxtiir yekk si boona ak yukk si boona yekk si boona ak yukk si boona bi tasdiidi wala bi taxfiifi bi taxfiifi bima kaanu yekk si boona bima kaanu yukk si boona nga xam ne dañoo dëkkee di kàcci bu sadda waaw walla si yu kasi bu juddiin waaw wa saalika la si yadduhul yaddiin moo tax Seyda ñu mari wax ci xutbaam xutba jumaam ba ne wala yasaalu lisaanul xaal yu kasibuna daga ne itam yakasibuna dinu weddi waaye yu kasibuna nag moo gën a jotal te daa ji maa neen du dañ lisaanul aal yu kës si bu naa dëkkee dinu wedd nga wax ci sa làmmiñ lisaanul aal ba ne la kàcc nga de ah waaw adum baal yu kës si bu naa bima kaanu yu kës si boona wala yekk si boona way saa qiila ndem nees na lawu ñeel leen laa tafsidu bàyyi leen yàq fil ardi ci adduna bi di loraale seeni morom ci kéefër bi ngeen di def ak taxwiixu anil iman ak bañ a gëm yàlla di ko nagantalu xaaloo ñu ne innama dëgg-dëgg na daal naxanu nun daal innama dëgg-dëgg naxanu nun muy taxfiir naxanu ji muy tawfiir ci innama ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci lu wóor a wóor a wóor nun daal musulmoon a way yéewa naw yàqunu de dana yéwénal yàlla ne allah yeewu leen yéen ñëpp te xam ni na ngeen xam ni gaa ñooñu innam naka ñoom hum ñëw al mufsidoon na ñooy way yàq ñi wala te lu fi ne laay soroon yëguñu nag nii ñu ngi yàq xam nga ku amul xam-xam lu muy yàqit ba yëg ni mu ngi koy yàq kii yàq te xam ni mi ngi yàq mooy ki xam moo tax mooy yàlla ak boroom xam-xam rëy ndax li muy def xam na ko moo ko tey tayaaral ko bokk la ki nga xam ne moom xamu ko yëguñu ko way saa xëy na dem nees na loom ñu leen aminu kaay leen waaye ngeen dëggal kaay leen ngeen gëm yàlla kama amana naka dëggale naka gëm naasu ashaabu rasul naasu jooju ñu ngi si jublu saaba yi yonent bi xaaloo ñu ni ak noomi nu ndax dañuy dëggal kama amana naka gëmee sufaawu waaye dese ñu ñu ñàkk ñu xel nga xam ne amuñu dara ay baa doole lañu moo leen tax a gëm dañoo xamul li xew allah yàlla nee na maa leen di fayul innahum naka ñoom ñoo ñu di wax loolu hum ñoom sufaawu ñooy dof ya ñoom ñooy dof ya walakin laa ya'lamuuna yëguñu ni dañoo dof xamuñu ni dañoo dof dof xamul ni dof la dof xamul ni dof la wallahi xamul ni dof la benn jinne benn jinne jiitu ci kanamam rek lu mu def mu toppandoo ko mu topp ci man di fori sagar ak di bàkkoog di ŋaax ak di yuuxoog di feccat di def lu ne moo xamul ni dof la ñu ne ndax dof dana xam ne dof la ñu ne déedéet xamul ni dof la ñu ne ndax wàllu yi dana xam ne wàllu yi la ñu ne déedéet benn benn wàllu yu tuuti ñoo xam ne wàllu yi lañu tax loolu karaama lay doon ci ñun ndax bu xamee ni wàllu yi la day yàqule wàllu yi la ko xam dof du xam ni dof la xel mee xel mee yàqu rek ñu ne na oto bu ndox ma jaxasoo huile ba mooy wata bu dof day dof waaw day jaxasoog huile ba mooy indi jaxasoog deret bi jaxasoog huile ba mooy huile bi jaxasoog deret bi tuuti bu su nee toq tuuti mooy indi sag mu méttee méttee méttee xurfaan bu méttee méttee méttee xam ne dañuy def toq tuuti rek su baree nag mën naa dem ba indi ndox moo tax dof du soj dof bu sojee rek dee dof du soj de ndax li ko li ko naroon na daal dal na ko ba pare moo tax jaxasoo naag moom ba pare mënatuloo def leneen lépp doole loolu moo tax du soj moo tax bu weex bi indi soj gisuloo nit bu ngasee du su ngasaat dafa nekk wérul feebar boobu ñuy wax ngasat ay li nga xam ne bu la dalee dootul la dal feebar boo ko gisee rek du wér dafa wérul ma nga fa moo tax du la dalaat loolu moom la wolof yi indi ba ci ay gannaaw si téyeeg gannaaw feebar bu nekk am na sikki nag da cee gën a kii nit bu baaxee jaamukatu yàlla ami sët dañuy am gannaaw siti la ne woon ca maan gën ca bàyyi day nekk ca ñoom gannaaw siti la aha moo tax na nga wattu ñi nga xam ni dañ koy faj ba du la dal ba doo gannaaw siti ñu koy yàq yàqal nañ la sa gannaaw si feebar ba du la dal maara day taali ah ah aha fu nu ne woon ndem daje nañoo la si ne gaa ña nga xam ne amanoo gëm nañu muy ashaabu rasul naafiq yaa dajeel ñoom xaalo ñu ne amana gëm nañu comme yéen way saaxaloon ndem beru nañu ndem dem nañu ndem teqal ko nañu ñoom dem ci seen yoon ilaa seeti ni jëm ci seen kilifa yu bon ya seen kilifa yi naafiq ya xaaloo ñu ne gëmuñu leen de dañ leen di nax rek innaa ni ki nun maakum yéen ñii la nu àndal fi diine ci diine innama naanu innama dëgg dëgg naanu nun mutation na dañ leen di sàkkoo reetaan donc allahu bu yàlla yàlla ni maa leen di fayul yàlla yaxtaasi yàlla du reetaan kenn dalay alak yaxtaasi dana alak bihin ci ñoom maanaam dana leen fay lu bon loolu ñuy def wayamudu mu dolli leen tëbb leen fi tux yaa nañ ci seen daw ga yaamawoona ñu ngay déng déng rek di dem ci kéefar gaa ka ñëw yaamawoona ñu ngay déng déng maanaam mbir mu ñu déng déng ulayka ñooñu gaay la si ne mooy ñi nga xam ne istara wecceeku nañu dalaalata réer ga bil uddaa ca jub ga dalaalata ñàkk diine bil uddaa ca diine ga ñooñu perte nañu dalaalata kat seen réer jaay ko seenu njub jaay ko jënde ko réer mooy xotti sa mbubum àllaaxira daaxi sa mu àdduna xasaali yu nee na ñoo ñi jënde seen xam-xam ak réer jënde seenu njub seenu njub ak réer jënde seen xam-xam ak réer jënde seenu njub ak ndëngte ñooñu réer nañ waaye ñi nga xam ne dañoo fab njub gi jënde ko ndëngte ñoo gën a réer ñi nga xam ni ki nga xam ne nag da koo jënde adduna fab àllaaxiraam yi wam ca naroon am mu jënde ko adduna perte na xasaali yu nee na am na ko gën a perte ñaar ñi ñëpp mooy ki fab ad addunaam diineem jën neexale ko adduna keneen jëndele ko keneen adduna ñàkk sa diine jëndele ko keneen adduna neexale ko adduna waaye yow bu doon sa adduna bopp sax mu tane ah waaw ma ngoog yàlla nee na fa baa rabeet maay joxe bénéfice duñ ko am du tona di tijaaratoon seen marchandise mi wax wama kaanoon nu ngi nekk muta dina ñuy woy jub ci li ñu def duñ ci am dara ñu ni yàlla misaalal nu noonu ñooñu nu mel nu ñu mel nu ñu mel yàlla ni masaalum masalum seen misaal ka masal la fi mi ngi mel na waajoo xam ne ji istaw xadda maanaa aw xadda ñu ñu mel ñu ñu mel yàlla ni misaalum masalum seen misaal sama salo bi ñu ne na waa joo xam ne bii istawxada maanaa alxada maanaa istawxada dakk naa taal istawxada taal na rek istawxada naaram sawara damay bind seen géej kaatam la bi yéen néegi néegal lañ ko daan wax jàpp jàppal yéen jàpp jàppal taal jàpp jàppal moom lay bind dana la ci alxada taal na naaram sawara wala ma addaa ba nga xamante ni sawara wa leer na leeral na maa xawlahu addaa leeral na moom sawara wa maa xawlahu alxuraan lay wax de leeral na li ko wër lépp lépp lépp lépp ñoom nag li leen dal ba mu leeree leeral li ko wër sa abat dañu laa gër yàlla bi nuurihim mbaa bi dafay jub gi ñu ne lii ndax alihim mut addeen sa aballaahu bi nuurihim waaw mu ngi sax nag mu ngi falama adda at si bayaan ba noppi ni maa xawlahu falama adda at maa xawlahu te néewul fa aballaahu bi dawihim néewul fa aballaahu bi diyaahim loolu koy xanaa boo dee seet ci wax ci wax dañ naan koy lii la waroon a wax kon ndax falama adda at la waxul falama nawar falama adda at te diyaaw ak nooru bokkul diyaaw mooy leeru jant bi nooru mooy leeru weer wi leeru weer wi ñu ngi bàyyi ko ci leeru jant bi koo gis ci alxuraan mu ne diyaaw ni jant bee te ñooñ ñëwoon weer wee ñu ne nag saxaaba laay bi nooru nee na ngeen ngeen nooru ba la demee ak sunaat diyaaw ah waaw loolu waral waaw waaw mooy saxaaba laay bi nooru kon lépp lépp rek benn woon waaw mais bu ne woon bi yaa ngi ne ah kon kon xanaa leer ga nuuru gis na ko waaye gannaaw nuuru moom ci biyaa yi lay jóge mu ne coppet nuuru yóbbu moo tax nag ñu bënteen moo tax ku bënteen du gis guddi ndax leeru leeru weer yi dawul bëtam pour mu gis bu bët tëjee nag mu gis ci leer jant bi lay gisee loolu mu daan gisee nag la jël yaaw moom tëdd ko moom yëpp na ko lii nga xam ni gisi gis ñu jël ko wala moom tëdd ko te abalaaw bi noonu moo tax dëkk ci leeru jàmbur lay gis moo tax ñuy fekkale bëccëg la ñuy fokkale ci leeru jant bi wala bu dee guddee dañuy taal lamp dañuy dem ci lamp bi leer waaye mu ñu fokkale ci lëndëm lépp gis dara ci leeru jàmbur lay gis dañoo ne nga caare seen mbaxa ci ñëpp dañ koo taal guddi ñoom ñëppay lamp bu ñëwee di tàkkee nag ci teru bëtam daa mu commencé nag di gis ci leeru jàmbur kële nag teru bëtam yàqu na di gis ci leeru jàmbur nga borom xam-xam yi ñu gisal wala nga dem ci kuy gis ñu amat la masal wala nga dem ci ku mes mu masal la wala nga dem ci ka mes ka mes kon matal ku mat na matal bu fekkee mënoo matal sa bopp matal ok waaw daa ñëw di sëriñ dama joxe mat ñu matal saaba laa bi nuurihim li nga ne li nga mos du man koy nga xam ne maa mën a nga ne man dama mos moo ma def li ma koy wàdd nii saaba laa bi nuurihim wa tarakahum ma wàcc leen ci kulli maa kun ci ay lënd ànd ak mucc tubaab lu lënd nuuru ak ngelaw la ànd ak taw ba loolu misaal ba alquran rek lay misaal laa yu suroon na duñu gis dara ñu gëlëm ngëlëm ko baaxul réere ko gën ndax ku gëlëm day dëgër bopp kër baay dañ ñaan tëmbul way soxla ñu bàyyi ko ba gis ni dañu dégg dëgg dañ ñaan gis ñun way lu lañu dañu wax dëgg dañ ñaan dañ ñaan way dunde lañu dañu gis ak dëgg duñu ko dëgg duñu ko dëgg duñu ko wax yéen da ngay jënd lu ñetti téeméer yàq na rek ñaar téeméer ak juróom-ñett duñu ko dëgg duñu ko dëgg mille franc boo ko wax taxaw fa am yàq wala mille deux cent boo ko am yàq wax ay mille حب الحق بلغ الحق ملازمة الحق تقبل الحق
dañ leen di nax القرآن ختم كون في التحمل حب الحق بلغ الحق تقبل الحق ملازمة الحق دق دق يستاق دق yàpp yomb nag am ah nangu dëgg ngeen dem ci mbaare mbaare ñu sàkk dëgg seetal dëgg dëgg ñuy mokkal rek di sàkk dëgg ñu nangu dëgg dem la jote mu wala sama ko ak taxoo dëgg ñu nag moo kontar te mu dëkk mu ne ñu
waaw
nee na ba am jot nga dem wër ba gis waaw ñoom وتراكم في سلمة لا يذكرون ثم يذكرون هم ينسون لا يذكرون هم لا يبصرون أم لا يبصرون يتبعون لا هم لا يبصرون بنجد بنجد بنجد لا يرجون بنجد الكريم يرير جن مثال عندك جنين دي أو مثل ولا شيء مثال كتب من النير ويسكت الرحم ñu ne sànnaayu ay kese yi wala ndax ñu saxee ko ñu sànnaayu bàyyi ko ci aw niir topp doomu daa bañ a far fii nekk na ca niir yi nag xalaale ko su la maatum ay lëndëm ñu tegalee weexaatum ak melxa yu jàppaloo gën yu jàppaloo tam weexaatum ak melxa yu jàppaloo ak gën yu jàppaloo lu raxdum ak gën yu jàppaloo wa barxun ak melxa yu jàppaloo instrumentum wa raxdum wa barxun alquran la bu ko defee nag laaye yi wàcc noonu loolu ñu tànqale nga xam ni jëm yi dangay defe ni dara rey ak melax yi ñu jàlloon ni ñu def asaabihim seen kati baaraam ndax baaraam bépp xamu ci asaabihim seen kati baaraam anaamal yi lan mala lan mala yi ci asaanin ci seen biiru nopp ñu naa bi li salaaxe ngir dëgg saru kàddu ga ci dëkk sawt ak sarut melx ga sarut dunya moo tax ñu dal seen kati baaraam dugal ci seen nopp dafa ne dañuy dee asaral mawti lépp ba tand ci dee rek moom la léegi ma toogoon démb ci teew ko ne maanaam bu alxuraan doo wàcc di tudd yéefar yi di tudd seen jëf yi noonu lay mel ci ñoom ñu ne wallaahi yàlla mu ci ñu kenn jël kees dana ci yéefar yi wër na leen ñu romb su ko neexoon mu alak leen waxtaanu xaw na jegeñ na xaw naa ne albaraxu melax boobu mel mel waxtu bi mu fukk alkaara ñu seen jëf yi duñu gis nee na ulama adda waxu na ne ulama adda adna ay lafe bépp bu leeralee la ñeel leen bu neen mañ bu neen ray ñu gisag leer leer ñu temp tuuti na saw ñu dox tuuti ca leer ga wala tuuti ca yoon wa mu ne ma nga lëndëm mu lëndëm ba gisatoo dara mu ne ray yi nga rax nga gis yoon wa nga dox tuuti mu ne kanam nga taxaw maanaam ba alxuraan wàcce lu leen neex ñu nangu su wàcce lu leen naqari ñu laan mais tey ñu dox fii te leer ga Isa aslama ndëm nee na ko nag lëndëm na àll ñam xaamoo ñu lànk daal di taxaw